autorités politiques ne son plus en odeur de sainteté avec la population donc loolu créer ay couloirs yoo xamante ni yenn sénégal yi jàpp ne dafa am lu ñu xam alors que seen xam-xam demul fenn seen jàng demul fenn seen xel demul fenn parce que dafa am xel am jàng am xam-xam ñett yi du benn donc boo leen woowoon tey nga ne leen révolution révolutionnaire yi ñuy woote les pseudo révolutionnaires luy révolution duñ la ko donc révolution dafa tegu ci ñeenti principe mhm. bi ci njëkk mooy principe d'endiguement de la conscience des masses te gis nga étape yooyu yëpp nga xamante ni moom la révolution di toog day tënku ci ni réew mi bindoo parce que tey la nature sociale du Sénégal le Sénégal est un pays à fondement sociale imbriqué et hermétique donc ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lu ñaaw mu mënu fi am loolu moo tax tey principe d'endiguement de la conscience des masses tey bu nit ñi jugee am na kilifa boo xam ne bu waxee ñëpp wàcc bu fekkee ne nit ñi dañu jug kilifa boobu war a wax waxul mu bàyyi parce que dafa jàpp ne nit ñi dañu war a jóg deuxième principe bi mooy li ñuy wax principe d'accaparement Sénégal bu coow amee nit ñi dañuy wax nit ñi dañ koy jël ku ci nekk wax ci li mu xalaat wax boobu ñuy wax dafa am lenn lu muy génnee ci ñoom te loolu mooy tax nit ki tey du fajal boppam parce que dañ koy mooy opportunité mu génnee li nekk ci moom mm-hmm. donc bu ñu demee ba principe d'accaparement boobu jeex dañuy ñëw si lu ñuy wax principe d'étouffement coow am na nit ñi wax nañ coow bi day fay bu ñu demee nag ba principe d'étouffement boobu jàll réussir ñu si la ñuy ñëw si li ñuy wax la volonté de puissance bu boobaa nag da ngay gis ne l'institution incarnée par le président de la République peuple bi si boppam moo koy jël lu mel ni 23 juin dafa xaw a indi lool 23 nit ñi xeex nañ mais yàquñu yëfu ñu kenn et à la fin de la journée on s'est retrouvé avec une victoire démocratique donc li xewoon Sénégal bi passé c'était juste du n'importe quoi kenn mënu ko teg ci lenn waruñu def amuñu kenn Sénégal koo xam ne def nañ ko loo xam ne justifié na mu génn di yàq alalu jàmbur loolu amul donc mais mais capitaine mhm. gisoon nañ capitaine Dièye mais léegi ñu ngi gis par exemple benn capitaine Touré mhm. parce que Euh, est-ce que du da nga ubbi la boîte à Pandore mhm. ba nga xamante ne ni nga génne woon par exemple fësal lu la naqari woon ci biir euh, armée noonu la moom tamit daal di génne fësal ba tey jii laa la daloon mi ngi koy dal parce que defoon nañu 60 jours d'arrêt de rigueur moom actuellement ni mi ngi ci 60 jours d'arrêt de rigueur est-ce que ubbi woo la boîte à mhm. man sama cas dafa xaw a ak moom mm. parce que tenue yi du benn donc euh, capitaine lañ mm. mais moom tenue bu bleu lay sol donc il de la justice militaire am na yoo xam ne kenn du ko baal te man avant may wax man def naa procédure bi yëpp demande yi ma war a déposer yëpp déposé naa ko ba mu leer ma ne léegi je suis quitte avec la loi léegi nag moom première erreur bu mu def mooy hiérarchie am dañoo ne démission am si réseaux sociaux yi lañ koy yëg il n'a pas soumis de demande loolu c'est une faute militaire très grave deuxième chose wax naa ne que man bu fekkoon ne rajewuñ ma jusqu'à l'âge de 65 ans je n'ai pas le droit de m'exprimer en public muy deuxième erreur bu mu def ainsi de suite ainsi de suite donc loolu mooy suñu différence en fait donc tey li ñuy def dañ koy teg ci yoon terewuñ kenn mu bàyyi terewuñ kenn mu exprimer wu armée musul am problème boobu mais soo koy def na nga ko def ci légalité c'est important. capitaine am na loo xamante ne c'est vrai que sa sa sa propre décision la. Mm-hmm.